Heavy Mess.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 laata mu ndaw si ëmb <laughs> waay waay ku fa jaar li gën a ti doy waar na ndaw si bi mu ëmbee ba noppi daf ko doon nëbb ba li ci mujj am mooy dafa am doom ba noppi dal di sàkkal pexe doom ja li ko mujj feeñal nag mooy dafa toog métti dal di koy sonal way jur yi jël ko yóbbu hôpital bi ñu ko caytoo xool gis ne ndaw si am na doom waaye doom ji nee na may gisuñu doom dégguñu doom naka noonu ci la personnel médical bi dal di saisir commissariat central bu Diourbel bi loolu amee na ci la ndawal buur yi dal di ànd ak pompier def perquisition ci néegu xale bi caytu xool xool fépp ci la ñu gis mu lëmas doom ji dal di koy sànni ci rondal gi ay waay ana yërmande ak njureel moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ak l'accident yi mel ni tulleeg mal li ci réew mi jëwriñ ji di El Malick Ndiaye ñu dénk ko wàllum infrastructure ak transport terrestre et aérien dal dinay wi <laughs> ma ne sinon tali bi dinañu jeexal de ndax Sénégal nee na quatre-vingt pour cent yi am yëpp ci accident yi li ko indi dul lenn lu dul comportement nit ñi indiscipline boo xam ne maara détail yi moo tax ba jëwriñ ji ne mesures yi ñu jël dinañ ko appliquer ca déplacement bu mu doon def foofa noonu ca Linguère nee na dootuñu nangu benn pression bi nga xam ne tey jóge ci transporteur yi mesures yi ñu jël ñu bañ koo doxal waaw góore waay garmi à point bi moom dana am waaye kuréel yi yëngu ci wàll yi ñoom nee nañu loolu duñu ko nangu duñu ko jëfee moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax usine ak entreprise yaa ngi tëj ci réew mi de te nag réew moo xam ne usine ak entreprise ya day tëj musiba naaru lay lay indi ca réew ma moom daal usine bay defar kaju ca nekk ca Kolda fi mu ne tëj na yóbbu chômage lu toll ci téeméeri nit ak lu ca topp lu waral lu ni mel nan mooy nee ñu ay ponkalu maamu exportateur ñoo leen gane si tugg ci seen liggéey bi ko yaxeet ba mënatuñoo produire lu doy dem ba mu jural leen ñu tëj seen ba fi mu ne naa ñu ngi woo wàllu état ngir mu dimbali leen ndax vietnamiens yi ak indiens ñoo ñëw dal ak accaparer marché ba moo tax maa ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a grave corona laa wax journaliste bi di Basir Fofana nag nekkoon responsable communication ci agence bi ñu naan AMA dàq nañu ko agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie ba mu nekk nekkoon ma ne fa lañ ko daqee laa wax journaliste bi na ab chroniqueur la boo xam ne bi nguur gi toogee ba léegi mayu leen dara laa wax fu mu toogee yekk leen keteme sulil leen seeni mbóor dal di leen fàttali seeni waxi démb ba nag nee ñu ndax xam ngi looloo ko ko jural ndax journaliste bi daal fu mu toog ma ngay waar jomaay ak sonko moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax <laughs> waaye day suñu presse bi soo moytuwul presse bi ci dee la jëm presse baa ngay sukkuraat de pression fiscale convention yi ñu doon am ci yenn structure étatique moom ñoom daal presse bi songe nañu leen boor bépp ña ngay tëj yee ngay sukkuraat yii actionnaire yi da leen song bu yàggee de RTS a fi des RTS kot RTS moom daal bu yàggee RTS kot tey des ci réew mi ñu dellu jamonoy RTS ñëpp di ko seetaan mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz